su fekkee ne nag dem nañ ba ma mer. Mm. bu ma leen porté plainte. da ngay bu leen bu leen porté plainte déedéet déedéet du ci ñi ñi gars yi de gendarme yi de. fooy porté plainte. feneen du ma ko wax. wax ma ko kay ma xam. déedéet maanaam. Ah. déedéet gis yàlla. da leen di ñaan yàlla bu yàlla déedéet. parce que sëriñ ah, du ma li nga xam. ak li nga toll mbaa bu bu bu leen bu leen def la man daal li ma ba wax lenn la. Mhm. mooy. Mhm, mhm. nañ xam ne réew mi réew lislaam la. ñu ormal nit ñi seen biir kër yi seen jabar yi seen doom yi loolu mooy sa message. loolu waaw mooy sa message bépp buy bërëm kër. Ah. buy bërëm kër lii ma la wax. Hmm. laal na la c'est quelque chose de très profond. ñu war a may nit ñi seen intimité kër. Hmm. seen intimité ak seen doom. Hmm, waaw seen intimité kër seen intimité ak seen doom war nañ leen. mais xëy na liggéey bi rek mu des mooy. laaj sëriñ bi sëriñ bi de ah. dama ne. sëriñ bi sharia dafa am lu wax. sëriñ bi sharia dafa am lu wax. sharia mooy mooy échec doon laa ilaaha illallah ku ne échec doon laa ilaaha illallah dafa la am lu lay teg mm-hmm. dafa am lay teg mm-hmm. dañ lay a boo nee échec doon laa ilaaha na la sàngara aaya na la njaaloo aaya na la riba aaya na la lu bëree bëree bëri mm-hmm. la aaya na la wax ju ñaaw donc je crois que il est très important ku ñu xam ne du la da ngay jóg rek daal di man kat lu ma neex def fii Sénégal amuñu notion li ñuy wax harcèlement téléphonique mais aux États-Unis bu la bu nit téléphoné sa kër yow wala keneen su fekkee ne joxe nga numéro rek police dañ ko daldi oo hmm. harcèlement téléphonique dafa am yeneen i euh, xeeti harcèlement hmm. harcèlement wu famille hmm. yooyu dañuy aar njaboot yi ci yeneen i place fii nag da ngay si ñoo xam ne buntu kër yi ku neex waaye mu dugg am na fi kilifa yoo xam ne seeni doom yi jigéen lañ leen jaare ay ay wuyu ay dawal rawalekat yamba ay rawalekati drogue nga xam ne dañu ñëw xam ne kii kilifa la ñu jaaree ko ci doomam wala rakki jabaram bu jigéen naan ñu ngi ànd ak kooka ba kooka ay këyitam wala yeneen ak yeneen maanaam yu garaaw garaaw dafay am yoo xam ne mm-hmm. kër yi bañ a sañaw je crois que war nañoo tuumaaloo war nañoo aar ko war nañoo aar kër yi bopp ci bopp ah? sénégalais yi ma ni tuumaaloo ko il faut mu leer ci bopp sénégalais mais bien sûr parce que loolu dama koo sañul sax mm-hmm, mm-hmm. mais mais mais dama ko melul noonu camouflage ak joni joni alarba fukki fan ak juróom-ñett ak alxames fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu nekk xéewal ca joni joni bépp yónnee boo leen def li ko dalay ñaari téeméer jàpp juróomi junni xaaju li ngeen doon fay